waaw waaw li ñu ciy def lépp du neex a xam du neex a xam waaye daal lu ma xam mooy euh, ñun dañoo nekk ci këru xidma képp koo xam ne yaa ngi bokk si noonu noo bëgg a doxe ci sa àdduna ak sa àllaaxira den jëfe loolu moom ku làmb daj ndax li wér ca wóor mooy ku sotti ndamal ndigal di nga yóbbu ndabal ngërëm lii ñu jëf nag ci Serigne Touba la jóge woon ñëw ci Maam Rijaal mag ñi di ko doxal mu agsi ci ñun lu yokkuwul lu ne ma ngay wàññeeku noonu ngeen ko waxee nag li ngeen bëgg a xam mooy liñ ciy def loolu neexut a xayma ndax mun nañ ni tey ay nag la ay xar la tàmbale woon ak ginaar dem ba ci nag ak giléem ah, dem ba ci nag ak giléem ah, loolu yëpp nag ak li jamonoy soppeeku li muy xat xat xat maanaam at mu ñëw lañ cay def dana ëpp doole fopp am nañ jàll buñ ko estimé buñ buñ buñu buñu buñu buñu buñu buñu ko buñu ko xaymaa liñ ciy def dina ëpp doole fop fop lañ ca daan def ca at male li ñu ciy wax daal ñun ci liggéey bii ci lañ gëmee ni mbiru Serigne Touba amul tànk gannaaw ka tànk tànk tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ni ñu organisé woon nag ba lii am kenn nekkul ci suñ ginnaaw kenn wu wuñu borom sonn waar yi nga yéen a gis ñooy dajale seen i junni ak seen i ñaari junni ak seeni fukki junni ak seen i euh, ñaar fukki junni bu ñu ñëwee lépp ñu dajale ko teg ko ci loxol sëñ bi. am nañ commission boo xam ni dañ ko fay jël teg ñooy saytu lu jëm ci wàllu waañ wi ñoo yore affaire finance beeg yëpp lu ñëw foofa lay jaar ñu bind ko ku joxe 1000 francs danañ la ko bindal sëñ bi teg ci bëtam ku joxe ñaari junni danañ la ko bindal sëñ bi teg ci bëtam ku joxe euh, fukki junni. danañ ko bind sëñ bi teg ci bëtam nii nga gisee mbooloo mi dajeen nag ay nit rek lu ñu yàlla booleel euh, euh, li koy financé lépp lépp ñi nekk fii la ak lenn ci nekk ci kër gi ca nekk extérieur ñi nekk ci extérieur itam kenn ku nekk bu lii bu jotee da xam la la ca war da nga xam ni war nga teew war nga ci def sa ñaq war nga ci def sa xalaat war nga ci def sa doole comme yàlla mi nga xam ne lu xew mu teew loolu doomu aadama mënu ko jël sa wërsëg la nga man nga def ko ci waaye xam euh, natt nañ ni tey jii benn fukki fukki junni yi ñu def su déwénee da nga mën a def ñaar fukki junni ca bi nga koy def fukki junni yi lay gën a métti ci bu déwén booy def ñaar fukki loolu mooy ku dox dox voilà. li ñuy soññee rek mooy li ma waxoon ci ci kii bi ku sotti ndabal ndabal ndigal li wér ca wóor mooy di nga yóbbu ndabal ngërëm ca ku bokk ci kër goo xamante ni jëf la xidma rek la. népp noo bëgg a doxee ci sa àdduna ak sa àllaxira dee ni doxee ci ci ci ci digalul sëriñ bi ku dox dox ku waaxu waaxu ku daw daw ku temp temp ku taxaw taxaw loolu rek moom laay def kon nag sant lañuy def ak soññee waaw jërëjëf. waaw dëgg la xam nga li xew ci àdduna bi muy mbas mi nga xam ne nii dafa kii woon xam nañ ni moo sopp woon lu bëree bëri ba taxoon na événement yi ëpp ci yoonu murit bi ci senegal arrêté woon nañ waaye loolu nag yëg nañ ñu wàññeeku na ndax niñ ko yëgee itam ñi ñu joxoon mesures barrières yi gis nañu ni itam ñi ngi organiser seen i jataay yu bokkut ak yu ñuy def ñun ñii kon nag ku fóotal bukki ràccil bar comme yàlla dogal na ñu ngi organiser seen i mitin ak seen i kii nañu bàyyi ñu dund sunum Serigne Touba loolu rek la. waaw léegi dégg nañ ndax ñun euh, sëriñ Touba soo bëggee mu dundal la da koy dund soo ko dundee rek mu dundal la lii boo gisee ni mu demee xam ni. ñëpp dañ ko namoon dañ ko namoon ndax ñun lii moo ñu dundal ñun yoonu murit saafonte la ñu xam jaxasoo duggante waxtaan lu ñu am bokk ko partagé la ñu xam waaw bu ñu demee nag ba nga xam ne bopp sa bopp la ñuy dund loolu dañoo meloon ni ñun ci kaso lañ nekk waaye fi ne nag vraiment am nañ fierté bu baax a baax baax a baax